chargé de programme AMF la nekk association pour le maintien des filles à l'école euh, bokk ci collectif bii di autorité parentale partagée sunu yitte bu 8h jotee incha ñu dellu si ci ñaareelu pàcc bi à tout à l'heure. Babacar di nuyu Georges di nuyu ñuy déglu RFM yëpp alors euh, effectivement ni nga ko waxee xale yi xale yi jigéen ñi surtout euh, nañ leen doon naan nañu nañu ñëw maanaam nañ leen yóbbu école ñu jàngi mais surtout léegi plaidoyer bi mooy. nañu jàngi waaye nañ des foofu noonu cest à nañu des ci école yi parce que gis nañu ñun association par exemple man bi may euh, bi ma nekk mu tudd AMFE association pour le maintien des filles l'école maatam la nekk c'est euh, elle a été créée à Agnam li ko sabab lu mooy euh, ay xale yu jigéen ñoo toog ay camarades de classe ñu gis ni mu amoon benn élève bu mën jàng bu xarañ si jàng mu nekk jigéen nekk ndaw amul woon sax 18 ans ñu maye ko jékki-jékki ñu mayee ko en mariage biñ ko mayee nag loolu métti leen trop trop ñu mu doon àndal xaritam yi ñu yeewu ñu ne kon ñoom dañuy créer association parce que ñu ngi koy créer depuis 2008 biñ ko créer nekk ñu def ay plaidoyer comme quoi que ñu mayee xale yi ñu leen teel a mayee déjà en mariage loolu moo waral am fee et de depuis lors ñu ciy liggéey tey presque ça fait plus de 15 ans que am fi am et puis ñuy def ay programme foofu noonu dans la région de Matam et un peu partout au Sénégal et à l'étranger ndax situation bu wàññeeku na wala mu ngi euh, mu ngi mu ngi en l'état waaw waaw wàññeeku na bu baax a baax parce que gis nañ ni amoon na benn temps boo xam ne à partir de douze treize ans rek xale yu jigéen dañ leen doon maye douze treize ans quatorze ans dañ leen doon maye en mariage léegi nag euh, vraiment gis nañ ni ak plaidoyer yu ñuy def on fait souvent des conférences di def ay causeries ci ci dëkk yi foofu noonu par exemple on prend toute une commune boo xam ne chaque un mois ou chaque deux mois dañuy jël benn dëkk boo xam ne dañuy ñëw def ay causeries waxtaan ak parents yi euh, ci wàllum war a bàyyi xale yi ci école yi ñu jàng mm-hmm. l'école yi ba am yenn au moins yenn âge yi bu ñu amee choix par exemple ñoom ci seen bopp bëgg dem dafay mariage bon ñu ñu maye leen. Mm-hmm. Euh, foog naa sax euh, est-ce que fi mu toll nii xale yu jigéen ñi ëppuñ ci école bi. Euh, waaw nañ ko xool leneen loo xam ne tam ñi ko fi tudd bu yàggul mooy nii boo jëlee lu ci mel ni matière scientifique yi xale yu jigéen ñi ñoo ci gën a xarañ xale yu góor yi loolu am na am na fi mu at walla ay at loolu xam naa bokk na ci li ngeen rafetlu. waaw bu baax a baax bu baax a baax. parce que effectivement lu lu am la actuellement gis nañ ni par exemple ci statistiques yi am na école yu bëri euh, bërëb jàngukaay yu bëri boo xam ne tey xale yu jigéen ñoo gën a xarañ sax xale yu góor ñi ci concours yi aussi lu ñu lu ñu gis la xale yu jigéen ñi tey ñooy raw lu bëri xale yu góor ñi donc loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax. Mhm. de façon générale ak euh, jigéen ñi ci Sénégal yéen euh, seen association bi nu mu koy nu mu koy xayma jigéen ñu ndaw ñeeg ñi féete mag. waaw euh, je pense que waaw mooy collectif bi ngay wax walla ci association bi dëgg non de façon générale euh, quelle que soit l'association ou le collectif euh, les droits des femmes Sénégal. Mhm. nu ngeen koy évaluer yéen nu ngeen koy xayma. waaw man pour man am nay avancé yu bëri am nañu avancé yu yu bëree bëri ci wàllum ak ak yelleef jigéen gis nañu léegi vraiment il y a deux mesures yoo xam ne yu ñu jël. Euh, protéger jigéen surtout si dëkk bi protéger jigéen ak xale yi par exemple xale yu jigéen que ça soit des femmes et, des filles il y vraiment des avancées euh, avec euh, vraiment le gouvernement et des mesures qui ont été prises euh, un peu partout. mais nemmeeku <coughs> nemmeeku nañ ni itam te euh, dégg nañ sax fédération des associations de femmes di ko jambat fan yi ñu weesu. Mhm. ci wàllum ak ak yelleef. Mhm. violence yi. Mhm. ba léegi mu ngi fi. waaw daanaka euh, gisaguñ li koy saafaral violence yi nga xamante ni ñu ngi koy jëmale ci jigéen ñi. waaw dëgg la dëgg la euh, lu ñu ñaawlu la parce que gis nañ ni en deux mille vingt quatre par exemple euh, ñu ngi ci vingt et unième siècle ba tey violence par exemple ci wàllum jigéen lu lu am la et puis luy c'est c'est c'est une pyramide montante on va dire parce que à chaque fois que nit ñi dénoncé dafay mel ni dafay gën a yokk. que ça soit des violences conjugales que ça soit des violences par exemple à l'endroit des fi un peu partout dafay dafay gën a bëri donc on, à chaque fois on, on s'attaque plus à la femme on dirait dans ce pays qu'à qu'un homme bon c'est entre guillemets donc dafay xaw doy waar tuuti ñu gis ni ba tey ak plaidoyer nit ñi def yëpp ak li ñu jigéen ñi xeex yëpp ak droit de la femme li ñu koy wax un peu partout yëpp ba tey violence yi mu mu ngi gën a am donc loolu tamit je pense que il est vraiment grand temps que ñu bàyyi si xel xam na ni que du du ñu jëmale kanam du jëmale kanam nit ñi et puis quand bu dee dañuy wax ci wàllum ak ak yelef jigéen il est grand temps que que violence yi ñu mu deñ ko loolu ci askan wi la war a jóge wala ci gouvernement bi ngir mu jël ay mesures fermes parce que qu'on a même entendu mhm. ñeen ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu criminaliser mhm. violation yooyu violence yooyu ñuy jëmale ci euh, ci jigéen ñi waaw pour mu jógee si askan bi je pense que jafe na parce que depuis lors askan bi mooy kaas askan bi kaas na ba sonn donc à la fin je pense que tamit euh, autorités compétentes yi ñoom ñoo war a jël question boobu et surtout ñu ngi jëm ci campagne électorale. Hmm. campagne présidentielle donc je pense que. criminaliser tamit xam nga vraiment. <laughs> Euh, ça va être compliqué. ça va être très am na góor ñoo xam ne tamit jigéen ñaa ngi leen teg fitna. waaw di leen waaw. Euh, sotti essence cos almetal waaw ak yeneen ak yeneen. Euh, je pense que. war nañoo évaluer war nañoo évaluer lépp. xayma lépp ko xam pour man dañ ko war a waxtaanee c'est-à-dire loo xam ne la dafa concerné ñëpp lu concerné ñëpp nag dañ ko war a toog waxtaanee ñu waxtaanee ko mooy ci wàllum campagne électorale bi ñu jëm. candidat yëpp ñu concerné yëpp 19 candidats yëpp ku nekk dafa war a wone ban ban vraiment euh, c'est-à-dire ban lan la prévoir. surtout sur les violences faites aux femmes lan la prévoir si loolu sur les droits par exemple des femme par exemple fii ci dëkk bi au Sénégal war nañ xam ne il y a des mesures draconiennes yoo xam ne vraiment dañ ko war a jël et que vraiment cesse euh, cette violence exercée sur les femmes là. Mm-hmm. Euh, am na leen loo xam ne tam yàgg na doon euh, seen xeex mooy euh, mutilation génitale féminine. Mm-hmm. lu ci mel ni excision maanaam xarafal jigéen. loi da koy tere Sénégal waaye. ba léegi da dem ci ay gox ñu ngi ko fay jëf di ko fa di ko fa amal. oui euh, lu am la et je pense que AMPE association boo xam ne man maa fa nekk chargé de programme lu mu yàgg xeex la xeex la mooy MGF la mutilation génitale féminine lu ñu yàgg xeex la def nañ si ay campagnes yu bëri. Euh, jéem nañ conscientiser nag dañuy dem ci ci bërëb yu bari parce que ñun fi ñu nekk par exemple su ma juumul c'est la deuxième région concernée après Kolda mooy Matam c'est la deuxième région boo xam ne tey mu ngi def pratique boobu noonu donc c'est des statistiques qui existent euh, suñu directrice générale ba exemple suñu directrice exécutive mooy Wopa Diallo elle en fait un peu le plaidoyer que ça soit fii ci dëkk bi et à l'international donc je pense que loo xam ne yàgg nañ ko wax ñu ci kon gën a conscientiser la ñu am parce que puisque Sénégal dañ ko tere dañ dañoo tere loolu waaye ñu ngi koy def ba léegi je pense que c'est à la base ku nekk fu mu nekk yaa mën a conscientiser ki nga dendal et puis euh, peut-être nous espérons que à mën na changer parce que xale yu jigéen nii dootuñ ko nangu euh, mentalité évolué na Euh, maatam goog ngay wax euh, xale yu jigéen yi ju góor yi ay nante lañ léegi donc euh, xam naa ñoom it nañ ko xeexal seen bopp. mais Babacar je pense que à un moment donné du du c'est pas un choix par exemple ci xale yu jigéen ñi. Mhm. duñ leen may choix bi bu leen ko teelee def. waaw fekk xàmmeeguñu dara. c'est ça c'est ça qui est compliqué. ba doon tout tànk lañ leen koy def. collectif beneen bi nga bokk jëm ci wàllu autorité parentale maanaam loi bi code de la famille. ni mu tëralee kilifteef ci njaboot mooy góor mooy yilif mooy chef. ñuy wax autorité puissance paternelle. effectivement ñu koy ñu koy waxee waaye yéen da ngeen bëgg loola ñu dindi ko tolloole góor ak jigéen ci biir njaboot rawatina ci ni ñuy gérer doom ndax misaal bi ñu dégg ngeen ni wax ren mooy euh, bu góor ak jigéen di sëy ba tàggoo euh, xale yi tey ji yaay ji mënul dem ay aéroport Euh, génne leen ci noonu te fii léegi papa ji d'accordul pour yéen loola jaaduwul dañ ko war a jubbanti. waaw euh, message bi loolu la mooy autorité parentale partagée euh, collectif bi sax ñu tuddee ko autorité parentale partagé suñu yitte historique bi rek déjà li ko li ko tax a jóg mooy dañoo gis ni suñu benn sœur bu tudd Maria bu tudd Ndeye Maguette autant pour moi mu publier ci Facebook def benn post wax ci Sénégal mënoo boo nekkee jigéen mënoo jël sa doom nga dem defal ko passeport voyager ak moom sans pour autant papa ji autorisé ko bu la joxul ndigal yow mënoo jàpp sa doom déjà pour mu am passeport burul nekk il faut déjà l'autorisation du père sinon boo demoon aéroport tey bëgg a voyager doo dem donc faaw autorisation papa ji bu mu defee poste bi ñu gis ni il y a eu beaucoup de réactions plus de 300 réactions sur Facebook en deux heures temps ñu ne waaw mais qu'est-ce qui se kon lii dafa dafa nekk loo xam ne dafa soxal ñëpp ci la nit ñi woote wootante ku nekk jël sa téléphone gauche droite nga woote ñu créer benn groupe WhatsApp nit ñi commencé rejoindre def ay suggestion wu nit te ñuy ñu ne kon lii c'est un problème qui est là donc problème boobu dañ koy fajee est-ce qu'il ne faut pas revoir le code de la famille boo xam ne c'est un code euh, qui a été promulgué depuis 1972 donc on est à plus de cinquante ans léegi code boobu noonu est-ce que duñ ko def mise à jour parce que aussi autorité parentale partagée léegi lu lu war a am la parce que gis nañ ni tey bu góor ak jigéen tàkkalikoo ngeen nekkoon ci wàllum see donc lépp jigéen ci jigéen boo xoolee euh, yaay ji amul benn presque droit si doomam mënul def dara sànq pour autant que papa ji joxe autorisation même pour wutum këyit administratif boo demoon nga nekk jigéen bëgg a déclarer dañ koy bañ il faut vraiment que la le le le parent ku góor ki euh, mu mu nekk présent c'est-à-dire que moom faw mu joxe moom kàddoom pour nga mën ko def donc gis nañ que lu am lu am problème la donc est-ce que ce code de la famille là il ne faut pas le revoir et, euh, et euh, xanaa lépp la ñuy revoir boog lépp la ñuy soppi parce que code de la famille bi nee na euh, lépp lu aju ci dépense ci kër gi. Mhm. góor la war. am déet waaw xanaa kon dañuy. lañu la ngeen bëgg ñu tollale lépp wala ñu yéegal li wàccale le donc waxuñu tollale lépp parce que nekkul loo xam ne aussi une opposition jigéen ki ak góor ki c'est pas une opposition mais c'est-à-dire que c'est tout comme hein non c'est pas une opposition quand je pense que tey dañoo war a dem si loo xam ne c'est-à-dire papa ji yaay ji yéen a bokk njaboot gi yéen a bokk seen ay doom ngeen bokk kër gi c'est vrai que si article 152 code de la famille dañoo ne l'autorité parentale par exemple père bi mooy puissance paternelle bi euh, moo jox na ko lépp c'est-à-dire moom mooy chef de famille. justement est-ce que du problème de fond foofu. voilà problème de bi. du uh-huh. du foofa. Uh-huh. Euh, père bi nga xam ne wayjur góor bi nga xamante ne moom mooy chef de famille bi. bu fekkee ne jamono ji nga xamante ne ñoom ñu ngi sëy. waaw moom mooy chef de famille. c'est-à-dire lépp si moom la waar. par exemple ku jigéen ki tey boo takkaliko woon ak sa sa bon ak sa borom kër même boo takkaliko ko boo amoon tey liggéey nga dem retraite. yow du ñu verser dara li jógee si jigéen si dem ci sa si sa doom cest à lépp si góor ki la war mais imaginons tey bu divorce amoon s'il y a divorce donc c'est-à-dire tey xam nañ il y a des des hommes quand même entre parenthèses qui sont très irresponsables tey bu divorce amoon euh, ñu bëri dañuy bàyyi jigéen ci lépp par bu amee moom garde de l'enfant dañ koy bàyyi lépp mais kooku bu la soxla woon tey par exemple bëgg a voyager nga bañ par exemple da bëgg doomam da ngay bañ et puis on a eu des des des des témoignages dans ce dans ce sens parce que dafa am benn femme boo xam ne nee na depuis 15 ans elle est femme divorcée elle vit avec son enfant depuis quinze ans xale bu góor bi dem benn concours réussir concours bi war a voyager mu woo papa ji te depuis longtemps ñoom ba amuñu benn information ku nekk ak si keneen mu woo papa ji parce que doom ji daa war a voyager mu bukk autoriser mu dem papa ji daf ko ne déet c'est pas possible. sama doom duma bàyyi nga ànd ak moom parce que boo demoon mun nga fa am beneen góor mu tàkkale et puis dootuma gisaat sama doom est-ce que loolu c'est sérieux pour moi ce n'est pas sérieux donc gis naa ni ci lu ñu war a waxtaanee la et puis dañ ko bokk ku góor ki ak ku jigéen ki dañoo war a toog waxtaanee ko ñu revoir c'est-à-dire il faut tout changer mais il faut revoir ce code de la famille la pour que au moins tey ku jigéen ki am yenn je pense yenn droit est-ce que est-ce que est-ce que bala moo est-ce que c'est pas un problème de société ni nga ko waxee léegi waxtaane c'est-à-dire que euh, mag ñi bu ñu sëyee ba sëyatuñu seeni problème ñu bañ ko transférer ci ci xale yi est-ce que du loolu la ñu war a euh, jéem a lijjanti changer jikko tuuti waaw mais loolu tamit euh, faw par exemple code de la famille bi revoir ko déjà c'est vrai que c'est un truc de société boo xam ne lu yàgg la fi lañ ko fekk mais lu ñu war a toog gisaat la c'est-à-dire c'est vrai que les parents par exemple ko bëgg a transférer seen problème parce que lépp ci doom bi lu lu warul mën a am la lu warul mën a am la mais euh, tey jii nii gis nañ ni c'est quelque chose boo xam ne mën nañ ko waxtaanee wàllum njaboot na parent yi toog waxtaanee ko buñ ko waxtaanee mën nañ am cest à ku góor ki dina am yenn droit yi ci doom ji ku jigéen ki am yenn droit yi ci doomam par exemple tey bu bëggoon tey déclarer ko du doon problème parce que tey on a vu que dans ce code de la famille là nee nañ ku jigéen sax mënul déclarer sa doom la femme ne peut pas déclarer un enfant loolu c'est pas possible il faut toujours que le papa ji soit présent moom moo koy déclarer bu bu bu dee par exemple vous êtes des parents yoo xam ne euh, comment dire doom bu par exemple bu illégitime bu papa ji reconnaître doom ji yaay ji bu koy déclarer da koy déclarer si nom par exemple bu papa ji reconnaître loolu da koy déclarer est-ce que loolu quand même je pense que lu ñu war a waxtaanee la et puis que ça change euh, ñu dem ci ci leneen vraiment. Mm-hmm. il y a beaucoup d'injustice yu ñu teg jigéen ñi. oui lu ñu war a réparer Georges. léegi yow mii góor di xeex loolu te nga xam ne lii la ma code de la famille jox. Uh-huh. yow nga nangoo bàyyi say droit yooyu lu war a loolu. parce que xeex bi d'habitude xeexub jigéen la. bon mais pour man tey du du xeexum jigéen kese. man par exemple mën naa jóge Dakar tey nekk par exemple feneen sama jabar nekk gàlle ak sama doom war a am par exemple tey lu jàmp une urgence médicale ma ko mais si on n'arrive pas à me joindre mu war a am passeport mu war a voyager et que man mënuñ ma joindre rek laa wax de c'est juste un exemple mais c'est un problème c'est vraiment un problème il faut il faut vraiment que que que que ñu xalaat mais bu fekkente ni tamit xam nga problème bi mën na jur beneen problème bu fekkee réglé nañ loolu ñu ñu changé loi bi ne léegi jigéen mën naa génne doomam euh, tukk tukki ak moom te du soxla papa ji euh, joxe autorisation. Mm-hmm. est-ce que ragalu leen tamit euh, jigéen ñi jël xale yi di di yóbbu bitim réew rek te bàyyi duñu yëg est-ce que loolu du jur beneen problème bu boobaa góor ñi tamit taxaw laaj ne leen changé waat loi bi on va pas s'en sortir Euh, mais si, on, on, peut, on peut bel et bien s'en sortir parce que dans d'autres pays, c'est loolu moo am par exemple tey ci Burkina sous-région bi kese Burkina ils ont ratifié ces lois-là pour qu'au moins euh, la femme parvienne à à faire par exemple à avoir certains certains droits boo xam ne ko góor ki am na ko ci doom ji donc je pense aussi en Europe il y a certains pays loolu moo fa am mais le fait que par exemple. yaa am na am na dëkk yoo xam ni euh, parce que dëkk bu nekk ay loi am tey ji sénégalais yi am njaboot bi biti réew ak ay ñu cosaanoo bitim réew. Euh, ku ne am nga ay problème doo mën a jël say doom par exemple ñibbi si Sénégal. Euh, nu mu la neexee aussi facilement. waaw loolu loolu loolu loolu amul cest donc problème bi en fait. dafa mel ni dëkk bu ne ay luwaam ak ay réalité mi tam. waaw mais réalité. problème yaa ngi fépp. réalité sociale yooyu noonu yi ñu am. réalité sociétale yooyu noonu mais loolu la ñu war revoir rek pour man c' une question de responsabilité ah c' est une parentale boo leen toogee waxtaanee ko dëggantaan je pense que jigéen amul benn sañ-sañ jékki-jékki rek jël sa doom yóbbu ñun Sénégal sax je pense que yarewuñu noonu. que ku jigéen ki dina jékki jékki-jékki yeewu benn jour jël doomam et puis voyager sans pour autant avertir je pense que loolu c'est pas quelque chose qui est quand même dans nos donc juste que revoir loolu et puis jox la chance aux femmes que voilà yenn responsabilité yi papa ji am ku jigéen ki mun ko am mais voilà on passe à autre chose wéetu leen ci xeex mi mm-hmm. est-ce que wét wéetu leen ci wéet non wéetuñ ndax yéen seen collectif bi yàggut a juddu yàggut waaw est-ce que ngeen ak yenn yi nga xamante ne ñoo di kuréelu jigéen yi nga ne ñoom ñooy xeexal ak ak yelefu euh, jigéen ñi waaw bien sûr bien sûr parce que boo xoolee tey on est regroupé de sorte que on a un peu tout bari nañ fa ay profil ay profil yoo xam ne ku nekk mu ngi woon bokk si yenn kuréel kuréel yi bëri nañ c'est-à-dire ñi nekkoon ci kuréel diw ñi nekk ci kuréelu beneen et puis récemment le 29 euh, bi passé 29 février dañoo def lettre ouverte yónnee ko premier ministre Amadou Ba pour benn plaidoyer parce que da doon def euh, un conseil interministériel ñu wax ko ko que code de la famille bi ñu am vraiment baax na am na yenn disposition yi ci am que ñu revoir ko notamment l' article 277 et l' article 278. jërëjëf jërëjëf Djibril Diaw jigéen ñaa ngi may envoyé message naan. am na ci góor yoo xam ne tamit dañuy jël xale yi génn leen bitim réew sans yëgal ko yaay ji euh, ndax loi may na leen ko kon euh, problème baa ngi noonu nañ ko waxtaanee comme comme vous dites. jërëjëf Djibril euh, bokk ci ñaari association benn bi am fee association pour le maintien des à l'école ak collectif autorité parentale partagée sunu yitte jërëjëf Georges jërëjëf Soxna Naata. Babacar Fall Georges Déthié Diop ak seen gan ñu ngi leen di ñaan.